gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu-sang seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñaanal bu baax suñu way jur yi jiitu ah, yàlla na ñu xippee ci barzaaku seydina muhammad ñaanal suñu wasila cheikh na cheikh saad bu yàlla yàlla yokk leeram ñaanal ah, kilifa diini Sénégal yëpp kilifa aada yi ba ci ñi ŋànk réew mi yàlla na yàlla dëgëral te may leen xéewal ci daraja yonent bi ah, seen xarit seen mu Moustapha Rassoul moo ñëw ci émission bu mag bi nga xam ni mooy ma way yonent bi muy dakar 92 point com ñu béggalante ci Seydina Muhammad Muhammadu ma ci Madina waawaay borom Medina wayli leen ma Muhammadul Mustafa sama géer yóneen xayrul anbiya leen jiñ leen ma way sang ba ca Madina Seydina Muhammad Muhammadu ma ca Madina waay mi di muhammadul mustafa sunu géer yunin xayrul ambiyaay man gëjoon naa way ngir ñu jug di taalif te ferul baasin faasin ki may bëgg mooy sang ba ca madina seydina muhammad déggal góor gi ci kasoor alaaji Medoune Thiam nee na Seydina Mohamed baay Mame Fatou Thiam président fondation Kër Rasoul yàlla na xippi ci barsaaku Rasulullaay alaaji Medoune nee na Rasulullaay taalaka sannaaw bi nuurika qatta zayyanati samaaw unzila fiihi qur'aanun kariimun kitaabul lil anaami bihi najaaw yi seydina muhammad mi may way waqul izzatul waqul masalul wa isa lana haydan bi xujajun araaw yuridu lmushrikuuna bi daarayni nadwa halaka muhammadin walahum balaaw لقد هلك يدا ولهم أزيما لما نبذ الكتاب لون دياو ajamidu leen a jël naa sama xol bi jël sama ruu bi jël sama lépp jébbal ko seydina muhammad ñu ne ko alaajamidu mindal mu ni uhibbu muhammadan xayral anaam wa akramahum loo aqna anaam alaajamidu nee na jullitoo saxu lii di julli ci sang ba ca madina seydina muhammad alaaji mi du nee na ku julli ci moom benn yàlla julli ci yow fukk nga julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer nga julli ci moom téeméer ñu faf lay baal say bàkkaar alaaji mi du nee na wasalli alay waalil kiraami ma taslimi rabbi lakal xaddaawo tey ñu way yoneen mu duma ci madina waaw borom Medina wéyli leen ma Muhammadul alayhi wa sallam xayrul wayleen Seydina Muhammad Mamadou Abdalaay ku way ñu way ku wayul way xayrul anbiya seen xarit seen soppi alaaji Moustapha Rassoul ci seen émission bu mag bi nga xam ni mooy ma woy yonent bi ci seen site bu mag bu mag bi nga xam ne àddina yëpp ko bëgg muy ah, dakaar 92 point com ñu béggaleen ci Seydina Mohamed jërë ngeen jëf sallallahu alayhi wa sallam xayrul anbiya ya